maa ngi nuyu monsieur le maire di waa Thiès waa yëpp vraiment kontaan nañ trop trop torop si lumière yi mooy sama grand frère bi lu mu wax rek bu njëkk fii nii boo fi romboon sax yaa ngi si risque presque ay vingt heures day fekk ñu wàcc mais fii la ñu nekk ba quatre heures du matin dëkk bi moom léegi macha allah am na sécurité totale foo romb dafa leer nañ foo romb gaa yi nga fay def arrêt fii nii saa fii gars yi borom jakartaamaan yi fii la ñuy def arrêt presque ba ay heure bu leen neex ñu soog a ñibbi à cause de lampe yi kon lampe yi bu amuloon li yëpp du am monsieur le maire nag moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla sàmm ko suturaal ko moo xam projet am ñun dañuy nekk ci am rek di ko encouragé di ko ñaanal yàlla. man yàgg naa fi liggéey depuis 2016 maa ngi liggéey fii mais bu ma daan liggéey ba 18 heures jot yàqamti naa ranger samay bagage dem feneen xool foo xamante ni dinaa fa am lumière. waaw fii bu njëkkaan romb sax maanaam boo fi rombee nga xamal ni yaa ngi ci danger parce que dafa lëndëm mais alhamdulilah maire bi dafa ñëw li mu njëkk a def mooy lii lumière bii bis bu mu taalee lampe bi bis boobu man fii laa nekk fii laa jullee timis kon alhamdulilah lampe yi maanaam ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm. xanaa tout d'abord di sant yàlla rek. di ko ñaanal yàlla moom moom moo xam lu mu yéene ci commune bi yàlla na yàlla mottali yéeneem la ñuy wax en tout cas ñun gis nañ ci suñ bopp ndax avant ah, lamp yi di tàkk fii moom 19 heures rek ñu wàcc fii kenn doonu fi woon taxaw ndax man boo fi taxawoon sax client du la du la fi wóoloo kii boo fi taxaw te moo tax doo doo fi taxawee doo am client yow tam sa xel du daal sax ba nga fiy taxaw kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaan yàlla xanaa mu gën a yokk làmp yi espace bi gën a leer tey xam nga fii nii ni ñu koy defee nii di fi tuur mbalit bu ñu sañoon ñu def ko benn mini jardin boo nga xam ni kenn dootu fi tuur mbalit mu nekk jardin boo xoolee commune wu Thiès Thiès dañoo manqué ay jardin public ndax maire yi moom xam nga pëccaxoo la dañ koy xëccoo mais suñu ruq bii nii war ñoo fexe bañ am fi benn jardin public soit fii nii wala côté mairie bi noonu terrain Kocc foofu yëpp buñ ko amoon tam day baax. forcé na lumière bi quoi. amoon na quelque sax mais da ko gën a renforcer gën koo leeral fii moom wax dëgg yàlla benn ñaawteef kenn mu ko kenn mënatu ko fee def te gisuñu la leer na naañ macha allah yàlla lépp gën a leer. mu tàkk ci dëkk loolu tawfeex la rek waaw tawfeex gi maanaam ay gone dañ fiy jaar ak ay jigéen ak ñëpp ay mag ay ndaw kon amaana adduna bi yëpp daa war di leer waaw loolu daal dañ ko ci sant di ko gërëm daal. moom la ñuy wax te su gënee yokk sax mu gën a taw feexe yal na ko sunu borom fay si kattanu sëñ Fallou. waaw c'est bien de nu kon moom instant bi mu ngi belli moom mooy loolu waa nu fi def naaj na de ñu ngi leen di remercier bu baax nag mooy loolu quoi yéen a ma gën a xam mais tali bi rek instant bi moo ñu problème bi quoi tali bi tali bi dafa leen ñu tali bi ba mool loolu rek mooy suñu manque quoi. lamp yi moom kontaan rek fii la moon na trop lu nekk ngi foon jaan yeeg lu nekk jiit yi amuñu ndox amuñu courant presque juróom-ñetti at ñu ngi fi dëkk sonn bu bëgg dee bi courant bi ndox mi moom monsieur le maire moom kontaan nañ trop dañoo kontaan na ba mënatuñ koo fay yàlla na ko yàlla may deuxième mandat ci barki sëñ Babacar si lépp lu mu yóotu rek yàlla na ko yàlla suñu borom defal man la Alboury maa dëkk leen ziare baax bu baax a baax leen ñaanal jàmm rek tawféex monsieur le maire kontaan nañ baax nag wax dëgg yàlla fii yàgg nañ fi nag biñ fi ñëw amuñu woon courant amuñu woon ndox mais boobu léegi ñu ngi toog di xaar bis la ko yàlla dogal ñu lay ñaanal deuxième mandat rek ca kaw ca kanam waaw liggéey bi yàlla na yokk yaag monsieur le maire Babacar Diop ñu ngi gis seen taxawaay nag biir Thiès liggéey bi rafet na lool yàlla yàlla may deuxième mandat ci barke Seydina Mouhamad. ndax fii ay jamono kenn ñemee fi woon jaar dëkkuwaay bi kenn ñemee fi woon aw sax à part de 18 doo fi aw mais nii nii macha allah man maa ngi nii som laa dëkk damay ñëw ba une heure deux heures du matin ma jaar jaar nii demaan duñ def lu dul kontaan di ko ñaanal li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal. non lamb yi moom pour man baax na fi quoi parce que tout le temps fii nii da am ay agression gars yi dañ doon këf kiiwu ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci alentour bi fii mais vraiment moom ñoo ngi jaajëfal euh, euh, maire bi ci liggéey bi mu def. waa parce que day permetre sax habitants yi nekk fii yëpp bëgg mën a bénéficier wu ci électricité bi parce que am na ci solo trop trop trop trop trop. yu nuyoo ñëpp. di nuyu askanu cees yëpp rawatina ñu dëkkee Thiès Ouest euh, comme ni nga ko waxee euh, bi ñu fi toogee léegi yàlla dafa dogal ci wàllu éclairage public ñu def ci ay jéego yu am solo taxawaay yu am solo donc li ñuy defee woon keroog euh, mooy dem xooli li nga xam ni liggéey nañ ko ba pare ci wàllu woowu ginnaaw ba ñu fa jaaree xool na mu meloon. maintenant bi ñu liggéeyee ba pare ni mel loolu lañ doon xool donc mooy site yi nga wax noonu mooy euh, rond point stade Lat jëm rond point Kalandoo Sindia yi foofu ku ne xam na ni yàgg naa lëndëm parce que li ci yi war a xam mooy foofu ci stade la dépendre réseau stade Lat Dior mais malheureusement euh, stade Lat Dior depuis plusieurs années foofu noonu toppatoowuñ ko dañ ko bàyyi noonu mu nekkoon axe boo xam ni dafa lëndëm këruus te nekk axe boo xam ne naa dafa nekk ci biir dëkk bi axe stratégique parce que tali oto yi jóge Dakar bu ñëwee ba ci rompoint boobu bu leen neexee bañ a dugg biir dëkk bi jàdd jaar biir Mbour 1 ñi ciy dem lu mel ni wetu ces Est watu lu mel ni ay Cité Senghor ay Hersent ay jàmm gën mën nañ jaaree foofu moo taxoon ñu ni ñun dañuy jëlal suñu responsabilité suñu bopp déconnecté ko ci réseau wu Stade dugal ko suñu réseau defar ko donc loolu defar nañ ko moom lañ xool mi ngi ci éléments yi ngeen yor bi ñu fa jugee ñu dem cité Ousmane Ngom Congo ñëpp xam nañ ko foofu tamit dafa nekk quartier boo xam ni quartier populaire la donc euh, courant bi àggu fa woon moo tax ñu def fa réseau électrique boobu euh, visiter ko bi ñu fa jógee ñu dem sud stade la même chose tëli kër gouverneur ñëpp xam nañ ko foofu tamit lëndëm kërus la ne diggante sud stade sa côté droite ak fayu sa côté gauche nga xam ni fi la jumaa ji nekkee foofu aussi macha allah bañ fa jógee ñu dem cees noonu cees noonu nag moo ci gën a moo ma ci gën a neex parce que Thiès noonu li ñu fa def dafa doy waar. parce que wax naa ko euh, ku xam auberge Gilbert fa mu nekk ci biir cees noonu nga xam dafa ruqe man daan naa fa jaar euh, di xool tableau bi yaakaar ni soriwul mais keroog ba ma fa àggee laa xam ni ndekete lii fa mu nekk sori na lool ci biir cees noonu. ñu xëcc courant bi jaarale ko biir Thiès noonu déjà wetu poste de santé bi Thiès noonu juge foofu xëccaat ko ba auberge Gilbert foofu xëcc ko nga xam ni euh, maison yi fa nekkoon en chantier yu ci bari dañu taxawoon di xaar kañ la fa courant di dugg courant kon dugg na fa ña fa am ay terrain wala ay chantier ñu wax leen ni ku fa dem mën ngaa sanc te doo am benn jafe-jafe pour am courant ndax mairie bi yóbbu na fa courant électrique ñu juge foofu sab ko ko tamit ku ne xam na ni euh, quartier la bu xaw a gannaawee un peu Thiès euh, un peu comme Thiès noonu euh, axe bi nga xam ni fa lañu def extension réseau bi tamit axe la boo xam ni dafa lëndëmoon kërus kërus kërus kërus bañ fay jaar yow mii Moussa ñoo àndoon na mu meloon gis nañ ko mais alhamdulilahi rabil alamin courant bi àgg na fa ñu waroon mujje sax route de Dakar 1 nga xam ni tamit foofu Euh, ci la bokkoon defar nañ ko ba pare waaye xëy na temps bi ak guddee bi moo tax finalement mujj ñu ko def mais incha allahu rabbi xëy na du ñàkk euh, fan yi di ñëw bu fekkee am nañ jot ñu wàcc fa xoolale ko suñu bopp comme ni ñu xoolee yeneen yi kon pour wax leen ni rek euh, maire bi ginnaaw bi mu defaree pharmacie Khadim Rasoul jëm rond point jëm tata arrêt tata bus 2 yi nga xam ni moo nekk watu mbuurkat diggante boobu ginnaaw bi ñu fa defee extension réseau def ko diggante euh, Palais d'Or route secondaire Somme bi def ko route de Dakar 1 ci kaw tali route nationale bi wetu Mbonilee rombut euh, atelier mécanicien yi ak tôlier yi nekk foofu ginnaaw bi ñu ko defee tamit ci diggante lycée Malick si ak gendarmerie tali boobu dugg biir cité Malick si donc bii mooy suñu deuxième phase extension réseau mu concerné woon quartier yooyu ma tudd ak site yooyu ma tudd donc loolu nag dañ koy continuer boole koog yi nga xam ne ay pièces de rechange la mooy làmp yu yàqoog wala ay horloge yu yàq ñu war ko def euh, ñi dëkk Thiès fan yi bu ngeen ñëwee ba rond-point Stade Lat Dior jëm pharmacie Khadim Rasoul mooy tali Sofraco bi ku fa jaar di nga gis ni ñaari fan wala ñett ci fan ci ginnaaw defaraat nañ ko parce que foofu solaire moo fa nekkoon mais solaire bi doxatul woon baaxatul ku fa jaar di gis ni maire bi defaat na fa ay lamp mu leer nañ Euh, ñi ngi war a dem biir gare routière parce que pylônes yu mag yi nekk biir gare routière euh, projecteurs yi mooy làmp yu mag yooyu ne war fa ne yu ci bari dafa yàqu matériel bi ñu ko war a changé yëpp mi ngi fi incha allah xam naa ci biir semaine bii ñu jëm dinañ fa dem monter ko diggante rond point parcelle jëm Concorde foofu tamit ku ne xam na ni solaire moo fa nekk mais solaire yooyu tamit doxatul yàgg na. seen euh, ni ni ñuy éclairer voilà ni ñuy leerale daanaka amatul njëriñ kooku tamit incha allahu rabbi dinañ ko defar ci fan yi bu fan yu néew incha allah dinañ ko defar donc <coughs> programme yooyu yëpp programme yu rëy la ku jaar euh, rond point Normandie euh, romb Gandiol ñëw rond ñetti kadd foofu leer nañ la def léegi ku fa jaar di nga gis li may wax ni boo jaaree rond point Normandie boobu ba euh, rond ñetti kàdd jëm ba Lazare ba ngay dem ba fi cinéma amitié nekkoon mu nekk auditorium léegi axe boobu yëpp ba ni ngay ñëwee euh, boo de l'autre côté maanaam à partir de rond ñetti kàdd jëm ci kaw mel ñu leem ci séeréer yi axe boobu yëpp defar nañ ko ci courant ba mat sëkk ñu ngi dugg nag ci biir quartier yi ndànk-ndànk n'est-ce pas donc incha allah rabi day continuer parce que programme yu am solo daal lañ am ci wàllu éclairage ngeen xam ni euh, ñu ngi ci n'est-ce pas ku ñu gisagul it incha allah di ñu gis ci kàtt ci kàttanu yàlla parce que ñun loolu mooy suñu mooy suñu sacerdoce maanaam loolu mooy suñu mbégte mooy suñu cër maanaam dangeen ngeen ñoo fal yaakaar ñu yaakaar jooju nag ñu ngi ci. di ñaan suñu borom yaakaar googu yàlla na ko yàlla mottali ba ngeen am ci lu kawe seen njort incha allahu rabbi bu fekkee daal liggéey mooy tax nit di am yaakaar bu fekkee yéene bu rafet mooy tax nit di am yaakaar bu fekkee euh, dëggu ak pas-pas ci li nga nekk mooy tax nit di am yaakaar ba yàlla la nga bëgg yàlla defal la ko incha allah yàlla dina ko defal parce que yooyu yëpp mu ngi ci ñun incha allahu rabbi kon ñu jaajëfal leen je pense que la visite qu'on qu a effectuée récemment, euh, nuitamment, c'était pour euh, se rendre compte de l'effectivité du programme d'éclairage public concernant la deuxième phase d'extension réseau électrique. Donc après avoir euh, réalisé la première phase qui concernait la pharmacie Khadim Rasoul à Mour 3 jusqu'au terminus Euh, du bus 2 Tata. Après avoir réalisé euh, l'éclairage euh, de la route secondaire de Somme, n'est-ce pas, en passant par Palais d'Or, après avoir réalisé aussi l'éclairage euh, de la rue menant vers Cité Malixi, entre le lycée Malixi et la gendarmerie. Après avoir réalisé aussi l'extension réseau qui passe euh, Euh, devant les ateliers de route de Dakar 1 vers Bonilay. Donc la mairie avait entamé la deuxième phase d'extension réseau. Cette deuxième phase euh, concernait euh, la route menant, menant vers euh, le domicile du gouverneur à, au sud du stade, euh, au niveau de, du quartier Congo, hein, cité Ousmane Gom. Ça concernait également Euh, SAPCO Thiès Nord et un peu euh, Mbour 1 parce que c'est euh, la principale route qui va du rond-point Stade Lat Dior vers le rond-point des Kalando qui, qui, à Sindia. Donc tous ces sites ont été éclairés grâce à cette deuxième phase d'extension réseau électrique Euh, concocté et réalisé par euh, la mairie de Thiès-Ouest, dont j'ai l'insigne honneur de diriger. Il restait même un site à route de Dakar 1, mais euh, puisqu'on a un peu terminé tardivement, on s'est levé tardivement, autant pour moi, donc euh, on n'a pas pu faire euh, cette étape, mais Inch'Allah, peut-être prochainement, si le temps nous le permet, on va le refaire. Tout ceci pour dire que nous sommes engagés dans un vaste chantier euh, d'extension réseau électrique, d'éclairage de notre commune, n'est-ce pas euh, Ces derniers temps même, il y a deux ou trois jours, euh, on a pu euh, étendre l'éclairage euh, du rond-point Stade Ladior vers la pharmacie Khadim Rasoul, la, la, route ou bien la rue de Sofraco. Il y avait là-bas euh, un éclairage avec le système solaire, mais ça ne marchait plus. Le système faisait défaut. Euh, on va également bientôt entrer à la gare routière parce que euh, les grands pylônes qui se trouvent là-bas et qui supportent les projecteurs pour éclairer la gare routière. Donc, euh, ces projecteurs ne marchent plus. Donc, on a déjà acquis le matériel. Donc, dès l'entame de cette semaine, on va réaliser cela. On va également très bientôt faire de la même euh, la même la même chose au niveau du rond-point Parcelles menant vers euh, le rond-point Concorde. Il y a un système d'éclairage solaire déjà qui est là-bas mais qui fait défaut, qui est défectueux depuis des années. On va changer ça Inch'Allah Rabbi très prochainement. Donc <clears throat> nous avons euh, dernièrement réalisé l'éclairage euh, de de Normandie, c'est-à-dire le rond-point Normandie jusqu'au rond-point ñetti euh, kadd et toute la route menant de l'auditorium de l'université de Thiès, communément ou bien anciennement appelé Cinéma Amitié, en passant par le rond-point Nyatikad jusqu'au village des Serrères, un peu vers le haut. Donc, tout cet axe est éclairé. Donc, on va continuer, euh, Rabbi, dans, dans ce vaste chantier pour entrer de plein pied maintenant dans les quartiers. Donc, pour vous dire que nous sommes résolument engagés dans euh, l'éclairage de notre commune, dans le cadre de vie, parce que l'éclairage fait partie ou bien participe grandement dans le cadre de vie, et surtout, et surtout, la sécurité. N'est-ce pas Donc, euh, pour vous dire que euh, nous sommes conscients des enjeux, et nous nous sommes résolument euh, donnés comme tâche d'être à vos services, bien d'être à vos côtés, de travailler pour vous, la commune de Thiès-Ouest, les populations de Thiès-Ouest qui nous ont fait confiance. Et Inch'Allah, oh Rabbi, au soir de, notre, euh, de la fin de notre mandat, euh, on compte présenter le meilleur bilan de Thiès, de toutes les mairies, Inch'Allah, oh Rabbi. C'est notre ambition et nous y travaillons et nous le croyons. Et nous prions Dieu de de nous accepter d'exaucer cette prière.